waaleykum xam naa li ma leen waxoon léegi rek ci anniversaire Cheikh Ahmed bi ñu jëm léegi rek lañu laajoon sunu wayjur bi nga xam ni moo doon dawalal sunu góor gu teel du googu muy Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum ah, ñu bëggoon nag sunu jur bu jigéen bi nga xam ne mooy borom mooy soxna sunu wayjur bi ko defee moom ñu laaj ko nan la dunde woon ak diggante Serigne Cheikh ak góor gi moom lan la ci xam kon soo yaa ummuñu loolu rek lañ la bëgg a laaj incha allah. ah diggante alaaji alaaji ma faali ak sëriñ Cheikh. li nga xam ne moom laa xam ci moom day mooy li ma faali wax rek mooy nit ku baax nit ku bëgg nitam nit ku yiw ndax diirab li mu ànd ak ma hmm? waxtu su ma amee doom mooy waaxu ñëw mooy uuf doom ji mooy indi xarum tudd mi ah, mooy yónnee ci alaaji sant seen ca tëngéej mooy indi soow mi hmm? tabaarkàlla te buy dem hmm? duma mer hmm? séq naa kook moom lu mat juróomi bant door a ñëw fii ci ci ci xaar yàlla ma faale di ma eh, eh, Pape Malick si mu di ko yónni mu ñëw di ma tuddal xale yi yëpp hmm. mu nekk nit ku baax a baax a baax xale yi waxtu buñ ma saa dugg néegub góor su ne ma indil xale yi ma yóbbu ko mu pour mu tàggu mu ñaanal ko su may dem la mu may jox ah tabaarkàlla tabaarkàlla ba baa ñuy summi seen xol du tàng lu ñu bëgg rek la ñu am hmm. mu nekk nit ku gore ma nekk jabari ma faali waaye lépp loo xam ne dégg na ci man sama rakk demoon nañu tukki accidenté ci yoon wi hmm? waaye bañ koo ko waxee dafa daldi yebal ay ndaw ñu fekk ma ci hôpital La Dantec hmm? yàlla dogal kenn ca faatu hmm? ñu ne ko ñu ci dese nga hôpital waaye ki faatu keroog ca dëjëm ba lu mu ca war a def def na ko lu mu ca war a def def na ko waaw maanaam ak mbaaxam nag mu ne su ko wax lépp mu ne su ko wax lépp waaye ma faali mi mu àndaloo nit daf ko mus ma faali musu koo yemalee kenn kenn kenn kenn kenn bañ na ma ma benn yoon la ma sa dugg pëlis kaso ah, moom moo tax mu dugg fa ne ko sëriñ kii leetar ya mu doon jox ambassade ja joteeg Senghor di jox ambassade yi lettre lettre yëpp mu tekk ca loxo mu li mu wër si ambassade yëpp joxe ko hmm? loola jàpp nañ ko ca hmm? seen histoire alaaji sant seen bi ba ñu jàppee àllaaji santi seen jàpp nañ ko ca hmm? ñu nekk ca pëlis ba nekk ca kaso ba alaaji sant seen sax moom ci li nga xam ne xam naa ko ci mooy ca la des ca pëlis ba kere ba ñu koy robi sëñ Abdou Aziz def ne bu ko kenn dugal ci woto dañ koo jàpp di ko awante di ko awante di ko awante ba ca armeel ya hmm. Hmm. moom mii nag kuréel bi ne leen hee bu leen ma indil koo xam ne jàngut jàngul ay français mun la def lenn ngeen naan dafa amee wax ne armaak nangam nangam bu ma kenn andil ko amul benn mati laa la wax ñu daal di koy seet moom ak moromam yi mel ni moom nga xam ne xamuñu lu may sëriñ bi daal di leen bàyyi loolu moo ko mu muccal ca kasu boobee waaye lu sëriñ bi mës a dugg mu dugg ca lu mu mës a génn mu génn ca lu mu ko mës a sant mu def ko ah lu mu ko mës a tere mu bàyyi ko daawul yegg ak moom ci tere sax ndax ci moom la toppoon hmm? moo daan xëy fajar yóbbu xale ñu dem jàngi hmm? dellu si jël añ ba yóbbu ko almadi hmm? suñu añee almadi mu wëlbatikuwaat jële xale yi école yi ñu doon jànge ah. doora moom boppam def lu muy def te du tee mu ne ko damay dem cinéma wala damay dem fenn waxtu guddi ah bala maa dem waxtu sàngam damay dem béréb sàngam daf koy xaar bay ànd ak moom ca foofa mu bëgg a dem guddi ba jeexal mu dellu siwaat damaa wax ne Serigne seex amul moroom nit ku am wëllëre la nit ku baax la nit ku gore la ah. dañ koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla xare àjjana waaw li mu bëgg moo ko xam yàlla ko yàlla defal yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na yàlla teg loxoom ci njabootam gépp dara ji yonent bi loolu moo taxoon noonu mu meroon ci moom moo taxoon daayira mustasidin maa ko jëkk a samp fii ci ci xaar yàlla di woo xale yi di leen jëndal ataay di woo xale yi di leen jëndal warga maa ko jëkk a samp fii ba fii mu ne daayira bii nekk xaar yàlla ci sama loxo di soqe ko mu mujj ne man daal comme que ñaari daayira laa yor benn daayira bi keroog ba may bind carte daayira yi nit ñi di ko jënd matase ak alaaji maxtaar baabu alaaji maxtaar baabu ne ma dama ci jënd carte jënd ci carte yóbbul ko sëriñ seex ne ko jabari ma faali laa dajeel mu yor kartu carte daayira di ko jaay daa daayira ne daayira sëriñ Cheikh la sëriñ bi kontaan lool sëriñ bi bég lool na ko jox ma carte bi hmm? mu yëkkati carte bi jox ko hmm. moo tax ba ñuy ñaan turu daayira it góor ñi ñoo def délégation dem ca moom mook Pape Malick ñoo ñu joxoon turu daayira bii ñu yor nga xam ne am na ñeent fukki at waaw ah. mosuñoo tardé dara dara dara ca Tiwaawan ah. eh, kii nag moom bakkat na mag dundam ak deem ak yëpp day dañuy toog sax mu naa su ma dee li ma leen bëgg a xamal yóbbu leen ma Tiwaawoon hmm? Tiwaawoon daal su ma dee ngeen yóbbu ma ca desalu leen ma dara kon nag sëriñ Cheikh di ko ñaanal yàlla di ñaanal njabootam gépp yàlla na yàlla defal leen jàmm di ñaanal Serigne Cheikh yàlla na ko yàlla xara àjjana daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli muhammad dégg xam ne ñiy wax mooy ñu xam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al ñu dund ak moom fa tabaarakallaahu kon li mu mën a wax daal mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane daal ñi ko xam tey ñoom ñoo ko waxtaanee kon nag ñu ngi leen di ñaanal yéen it yal na yàlla yal na yàlla guddal seen fan yéene bi góor gi am moom it yal na ko yàlla mottili li nga xam ne moom nga yéene waaye yal na yéex li nga yéene ñu yóbbu la Tiwaawan waaye yal na yéex yal na yéex yal na yéex bu ko defee rek comme foofu la ñu euh, arrêté émission bi bu ko defee rek ñu def ñaan bu ko defee ñu jox góor gi rek mu def ñaan. ci wëllëreem ak si Ahmed Tidiane Sy Al mu defal ko doog ñu ñaanal ko bu ñu paree ñu tej émission bi. ñaan gu jëkk gi nañ ko defal Serigne Cheikh ak Serigne Abdou ak Serigne Mansour def ko addee ci sëñ Babacar mu jaar ci ba ci seen maam seen maam seen maam ju baax ja Cheikh Sidi Hadji Malick ak njabootam yëpp ak soxna Umul Xayri ak soxna sëyna bu si ndax ñoom ñëpp. fa tabaarakallaahu daayira bi ma yor muy inaaya eh, bi soxna eh, mu génne àdduna ba ma laajee Serigne Cheikh nu ñuy def mu ne dem leen dem ci soxna bu ñii dem ci soxna Seynabu ba mu jóge fi ma ne sëñ Abdou léegi noonu def mu ne dee dem ci daba ba fi mu ne ci daba la ñu dem ñu ngi koy doxal ba léegi inaaya nag daayira la boo xam ne bi sëñ Babacar ko tudd ci turam daf ne bu bu daayira yëpp doon yàpp nee na kon res lay doon waaw ma bokkoon koog Bamar Ndom Ablaye Fall Amar Ñang Ousmane Ndiaye Njenge Alaaji Ñang Gan Seen ñi ci bokk bëri nañ ay fonctionnaire tabaarakallaahu ñi di ko doxal ak Alaaji Yusu Jóob Alaaji Yusu ku baax la ba fii mu ne néeg la joxe ca këram jox ko kër sëñ Babacar fa la ñuy defee réunion gàmmu ndar commission kiraam fa lañ koy defee fa la ñuy defee réunion gàmmu géeg yëpp tabaarakallah ala Youssou Diop moo tax sëriñ Cheikh kenn mënu ko fay am na xale yi ne ci kër gi bañ ko bëggee dañ koy dindi dafa ne déedéet kër gi du kër nguur ba kuñ fal rek bu bu fal la jotee ñu fal la neen ala Youssou kenn du ko dindi nde nee kër gi ku mu jox ndigal boo yàqeet kenn du ko nangu dañ lay bàyyi nangu naa ci làmmiñ mu ne sëñ kër kenn du ko miraas li mu am taalibe yee ko doon jox taalibe yi mu am nag kër ga kër yañ nag kenn du leen fa ay doom nañ wuti kër ñu dëkk xool xool googu googu matal amul amul dend amul kon nag léegi ñu def faatiha def salaatul faatiha qul wallaahu ñu def ko fukk ak benn boole ci ñetti li ilaa fi qurayshin ak ñetti inna ansalna fi laylatul qadri tëje ko salaatul fatiha yéene ko yool bi def ko addee ci yonti yàlla muhammad ñaan yàlla anta baabullaahi mu wàcce ko ci ruuxam wàcce ko ci ruuxam famem yëpp ci barke yonent bi bismillah